maanaam mooy loo xam ne dañu koy seet bu dee kuy jaay mu wax njëgg muy jaaye bu dee kuy xayma mu wax la nga xamee ne moo ci jaadu ci njëg waaye nekkul lu ñuy peese nekkul lu ñu natt nekkul lu ñuy wàññi mel ni am xar wala rajo wala kër ak yu bare bari ci yooyu nga xam ne noonu la demee lu mel noonu bu amee ku ca taq ne nangam lii maa ko ca moom te ràññeel ko bukk te mu ne buñ ko defoon ñaari xaaj maa moom benn bi wala buñ ko defoon ñetti xaaj maa moom benn bi na njëkk a wax kon bu ca kenn taqoon gannaaw ba koo ko jëndee ne ko nangam lii maa ko ca moom te loola nekk lu ràññi ko dañuy seet loolee ba xam dafa néew am dafa bari su fekkee ne boo seetloo jëmm jën cëndoon la koo ko wax ne moo ko ca moom ba yoon ne ko wax nga dëgg yaa ko moom mooy la ca amoon solo bu ci xasee jóg rek la ca des kenn du ko amal solo ne bu fekkoon ne ñaari gàtt la waaye ka doon jënd moom wala sax keneen ko doon jënd itam jëndaloo ñaar yépp moom ngay bëgg waaye doo bëgg jënd rek benn ba bàyyi ba ca des tey nga wax ne moo moom benn ba ba ca gën a baax nga xam ne bu xasee génn rek ba ca des amatu solo ba ca gën a baax la kooku wax ne moo ko moom yoon ne ko wax nga dëgg lu mel noonu faaw dañuy tebbi njaay ma ci lu war ka jëndoon dellu ñu jox ko njëgam ka jaayoon ñu delloo ko am njaayam bu fekkoon ne moom ma jëndoon nee na man day buñ bàyyee li ci des mën naa koo téye dañu seet lam tolloo ci njëgg ma fay ko yoon du ko nangu ndax yoon day jàpp ne loolu jekki-jekki jaay la dog njaay ma te xamaguñu njëgg nu muy toll ndax ndegam moom dañoo boole woon lépp jaay jox ko njëg yoon day jàpp ne la ci ëpp solo bu amee ko ca taq ne maa ko moom ba yoon ne ko jëlal loolaa taxoon njëgg am solo waaye ba loolu xasee génn rek lay des moom bala ñoo xam njëgam dëgg-dëgg dañ ko seetaat xayma ko ba ne daal li des moom nangam mooy njëgam kon nag bu dogoo xaat ci nangu na maa jël li ci des te buy seetee lam tollool ma fay ko yoon du ko nangu ndax day mel na rek dog njaay ma xaat te xamaguñu njëgg dëgg-dëgg du tee nag bu leen neexee gannaaw buñ seetee la ca des ba xam ne njëgam nangam la war a toll buñ juboo nag ka jëndoon mën naa jënd loolee des lañ bañoon kay mooy naka ñu nangulee ci yoon rek ñu dogu xaat ci ne nan jaayante woon du tebbiku faaw day wéy nga xam ne nag dog nañ njaay mi te gannaaw ba lañu door a seet da des bu war a tolloo njëgam kay jënd fay ko waaye bu ñu nee njaay mi tebbiku ne dog na gannaaw ba nag ñu seet la ca des jàpp ne kii jaay bu ko jaayee nangam mu baax te kii jënd itam loola jaral na ko ñu door a juboo ci mu jënd loola dara nekku ca bu fekkee nag la koo ko taq ne moo ko moom mooy la gën a néew ca loola dañ koy wax ne ko faaw kon da ngay téye li des ñu seet nag li la war a delloo ci njëgg ñu delloo la ko ndax lu néew lee nga xam ne ca la kee taq ba wax ne moo ko moom ba yoon ne ko jëlal wa in yekkun ndeem dafa nekk al mustaxaqu lañu yey xala siyaahi ca siiw ga nga seetluwaat nag baatub asiyaahu niñ koy firee ci walla ci ak siiw rek dañoo jublu asiyaahu asiyaahu mooy loo xam ne ña ko bokk séddoowuñu ko xam ne nag ke am na ca nangam ke am ca nangam ke am ca nangam loolu mooy asiyaahu mel nañu ne lii buñ ko doon séddoo diwa war a moom genn wàll gi mbaa diwa war a moom ceer bi ba di war a moom asaka ji muy fukkeel ba lu mel noonu la ñuy wax al jusu ashayon wa qabila tam nangu alqismata séddoo ga fastahaqa kon yeyoo na alqasma séddoo ga wal xulfu woote ga nag fii tama sukkin nekk na ci jàppandu bi maa ci la nga xam ne baqee des na bi xist yi ca cërëm ba mim maa ci la nga xam ne in xisaamuhoo séddoom ga ak nangoom séddoo ut tuqiya wattandikoof na ko la koo ko jënd te am ko ca taq wax ne nangam day maa ko ci moom lam ne moo ko ca moom dafa nekkut jëmm ju ràññiku daa wax ne buñ ko defee ñaari xaaj benn bi maa ko war a moom ndax dañ koo doon ci sunu baay nuy ñaari góor mu war a moom genn wàll ma moom genn wàll ñu topp ko ci yoon mu wax dëgg mbaa muy jëkkër ju jabaram faatu mu bàyyi nag lu mel ni kër mu ne maa moom kaar bi fekk doom ji góor ja moom daa jaay lépp kër ga jëkkëram ñëw ne kaar bi maa ko moom ndax buñ ko defee ñeenti xaaj man maay jëkkëram maa war a moom benn bi ñu seet ko mu wax dëgg lu mel noonu kon la koo ko taq wax ne moo ko ca moom nekkut jëmm ju ràññiku waaye xam nañ ne moom buñ dee séddale nangam lay toll kon dañuy seet ba xam jëmm ja ci boppam mënees na koo séddale te kenn ku ne bu jëlee wàllam man koo jariñoo wala bëri su ko séddale ci genn wet ni ki genn tàndarma wala benn gàtt wala sax mënees na koo séddale waaye ku nekk sa wàll day tuuti ba doo ko mën a jariñoo bi nga xamee ne loola mënees na koo séddale ndax day kër gu yaatu ci misaal wala muy suuf su yaatu ka ca takk wax ne moom moom genn wàll ga ci misaal wala moom moom kaar ba xaaj boobu nangoo séddaloo moom la ca kooku wax ne moo ko moom bu fekkee mooy la ci ëpp ba yoon ne ko jëlal kañ ko jaayoon mooy seet bu ko neexee wéyal njënd moom njëndoon ñu seet lañ ko war a delloo ci njëkk ñu delloo ko ko bu ko neexee itam xaj jënd ci njaay ma bu dee nag la koo ko taq ne moo ko ca moom mooy la ca gën a néew kon faaw ko jëndoon moom day téye la mu jëndoon te ñu seet lañ ko war a delloo ci njëgg ñu delloo ko ko waaye du sañ a xaj ci des nag mooy bi nga xamee ne loolee mëneesu koo séddale benn na nga wut séddale mbaa boo ko seetlu woon tam ku ne du mën a jariñoo wàllam foofu moom duy seet ba xam lay des day bari am day néew ndax bokkaale rek la mën a doon te bokkaale daa metti kon ka nga xam ne moo jëndoon ñu koy wax ne ko yaay seet bu la neexee nga wéyal sam njënd bokk ak kii bu la neexee itam nga génn ci ba set ci wecc ñu delloo la sa njëkk nga seetlu nag ni taalifkat bi tegalee baat yi ndax moom daa wax ne rek la koo koy wax ne maa ci moom nangam ni ki genn wàll mbaa kaar mbaa ceer bu dee luñ mën a séddale rek moom moom ma jëndoon du sañ a xaj génn ci njënd ma faw lay des néew ak lay des bari ñoo yemoo faaw day tëy rek loola ñu seet lañ ko war a delloo ci njëkk ñu delloo ko ko te fekk na la am rek mooy li ñu waxoon léegi bu fekkee ne la ci ëpp am na ko ca taq wax ne moo ko moom ba yoon ne ko wax nga dëgg te nee nañu bu dee genn kër moom donte ma des na ko séddale it la koo ko wax ne moo ko ca moom su xasee mat rek ceer ba mooy ko defoon ñetti xaaj benn ba loolu ak bari lañ ko jàppee bu doon suuf nga xam ne du kërit genn wàll ga rek bu amee ko ca taq ne moo ko moom ba yoon ne ko wax nga dëgg loola dal nay bari moom mi jëndoon ci boobu bu ko neexee xàcc ñu delloo ko njëgam bu ko neexee mu téye la des ñu seet dañ ko war a delloo ci njëgg ñu delloo ko ko fa mu dul sañ a xàcce benn yoon kay mooy la ca kooko taq wax ne moo ko moom ba yoon ne ko wax nga dëgg day lu néew bariwut moo tax saraa bi naa di taalifkat bi waxe wa zahiruhu kaana almustahaqu qalilan aw kathiran wa laysa kadhalik bal innama yakunu dhalika ida kaana almustahaqu qalilan wa amma ida kaana kathiran ka tulusin fi daarin aw nisfin fi ardin فالمشتري بالخيار بين التمسك بالباقي ويرجع بحصة المستحق وبين الرد ويرجع بجميع ثمنه غسير لوت لم وخني والخلف في تمسك بودي لولا مني سوكو سيدو دا جك جك رك ني wote nañ ci ndax moom ma jëndoon sañ naa téye la des wala sañu ko wax ja gën a wóor mooy li ñu waxoon rek ndegam loola mëni su koo séddoo bokk rek moo mën a am moom ma jënd te am ku ca taq ci yoon ne nangam maa ko ci moom bañ ko ne fabal lay des néew ak lay des bari ñooyamoo moom mi jëndoon mooy seet rek bu ko neexee jënd ci njënd mu ba set ci wecc ñu delloo ko njëgam bu ko neexee itam mu bokkaaleeg kookee nga xam ne moo ca tax ba am lum ca moom te mënees ko séddoog moom bokkaale rek lay doon moo tax am kilifa gu wax ne walam ara man qaala innahu la yajoosu at tamassuku bil baaqi fi hadal qismi والذي في الشارح والحطاب وغيرهما فيه أن المستحق منه مخير بين التمسك والرد وإن قل لضرر الشركة nga xool tam yeete bi borom saraa bi yeete ci arrabahu almuttaxazu lil xalla kal qaabili lil qisma fala yuxayaru fiihi illa fi istixqaaqi alkathir وهو في مثل الدار الواحدة الثلث وفيما تعدد من الدور ما ساد على النصف كالحيوان والخروض والنصف في الأرض كثير كما في الزرقاني وغيره jàppal ne la kooku jëndoon te am ku ca taq ne maa ci moom nangam bu dee loo xam ne day lu ñu toppatoo di ci wut xaalis ci am njariñ rek waaye doonut lu ñuy dëkke mbaa lu ko nuru men day xeetu puur rek bu ñu lakkee mburu wala day butik bu ñu luye rek di fayu luyaas ba lu mel noonu dañ ko yemaleeg luñ mën a séddale nga xam ne ka wax ne maa ci moom nangam lam ne moo ko ca moom ba yoon ne ko wax nga dëgg yaa ko moom su baree rek la ka jëndoon di sañ a xàcc waaye su fekkee loolu bariwul rek du mën a xàcc lu bari loolu nag nga dellu takkaat ko bu dee ci genn kër dong dañuy jàpp ne ceer ba bari na ku ko defoon ñetti xaaj benn xaaj ba ak bari lañ koy jàppee bu dee ay këri kër du genn lu ëpp genn wàll ga lañuy door a jàppe ak bari ba tey bu doon xeetu jur wala xeetu marchandise it lañ cay jàpp ne mooy la ca bari mooy lu ëpp genn wàll ga waaye genn wàll ga jëm suuf moom jàppi wuñ ko ak bari bu dee nag du kër du ak jur du marchandise suufus kese la moom genn wàll ga la ñuy jàppe ak bari nga xam ne lu matul genn wàll ga rek ak néew lañ koy jàppe waaye nag genn wàll ga moom ak bari lañ ko jàppe way ñëw kon dem dana nekk fil fay i ca màng ga maalul muslimi alali ab julit fa huwa kon moom laxoo ñeel na ko min qabli qasmil maghnami ci njëkk séddale màng ga wa in yaqum dem dafa jóg nag min ba'di ma qad qussima ci gannaaw ba nga xamee ne séddaleef na ko fa huwa kon moom awla moo gën a yeyoo bisi ci moom bi maa ci la nga xam ne taqawama xayma woo na ko loolu ñëw na ci téere yu bare bari jamono njëkk yi nga xamee ne jullit ñi dañ daan xeex ak yéefar yi xam yéefar yi mën nañoo song jullit ñi nangoo ci ñoom alal dañ daan def ba jullit ñi jàppanteeg yéefar yi ba jële ci ñoom alal buñ ca gisee loo xam ne ab jullit moo ko moomoon ci lu wér a wér buñ ko teelee xam te jotuñoo séddoo lañ nangoo ci yéefar yi dañ koy wax ne ko rek jëlal te du ci joxe dara buñ ko yeexee xam nag doxa séddale ba noppi bu mu nekk ci wàllu keneen du mën a jekki-jekki jël ko ca moom ndax kon wàllam day wàññiku waaye nag mënees naa seet luy xaymaam muy lu wëleer wa toll mu fay ko lu toll noona te jëlaat alalam loolu moom ñëw na ci téere yu bare bari ba ci ar risala wa mushtarin aji jënd wa xaaisun ak aji làq maa la nga xamee ne saaqa màng na ko man ka nga xam ne umbi na mayef na ko amaan amaan mooy kóolute ne ko duñ la rey man ngaa dugg te génn ak jàmm laa yu xasu deefu ko jàppe min hu ci moom bi samani ca njëgg bu ab yéefar ñëwoon bëgg a dugg ci biir réewum lislaam waaye daa ñaan kilifa jullit ñi bañ ko ne mën ngaa dugg ci jàmm génnaat ci jàmm mu dugg nag indaale alal joo xam ne ab jullit a ko nasoona moom naka mu ñëw nag am ko ko jënd ci moom baa daal am koo xam ne ci moom la ko jële niki mu may ko ko nga fayu ca dara loolu ci mën doon rek jullit ba nga xam ne moom moomoon alal joojee moom du sañ a dogo ci faaw ma jot ci ndax ndegam yéefar boobu moom dañ koo may amaan mooy dañ koo may sañ-sañu dugg ak génn ak jàmm kenn du ko laal alal jëm àndaale doonte mas nañ koo jële ci ab jullit ab jullit moomoon ko it bu dikkee kum ko xas jaay mbaa kum ko xas may ci misaal bu ko borom gisee itam du mën a dogu ci faaw ñu jox ma ko bu ne woon sax daay fay njëg ji te delloo ma ko it du ca sañ a dogu yemale wuñ koog nag jullit bi ci boppam dem ca réewum yéefar ya jënd ca alal moom dee seen ak ci biir jullit ñi ab jullit gis ko xam ne moom moo ko moom kooku moom dana ko sañ a delloo njëgg te jël alalam waaye bii nga xam ne yëfar baa ko indiwaale te bu muy dugg dañ koo may ak sañ a dugg ak sañ a génn moom lam àndaale ci alal jullit moomoon moo xam daa ñëw jaay ko mbaam maye ko ka ko moomoon daal na xam ne moom amul sañ-sañu ne tey ma jot ci moom la wax naa معناه أن الحربي إذا قدم إلينا بأمان وفي يده شيء من أموال المسلمين فباعه أو وهبه لمسلم أو لذمي فليس لمالكه نزعه من مشتريه أو الموهوب له الحائز لا بالثمن ولا بالقيمة وأما من ذهب لبلدهم واشترى منهم شيئا من أموال المسلمين أو وهبوه له وقدم به فلربه أخذه ممن اشتراه بالثمن وممن وهب له بلا ثمن ويؤخذ دفن جاب المأقوس لن جاب من لسن جاب ساج بلا شيء جلدو ترى وما لو خمينك يفتا دفنك جاب bima nekk na ci la nga xam ne xat bësi la joxe foon na ko def ko tub njublam bu nangu woon alali jaambur niki sàcc rek yóbbu mbaa siif yóbbu am nag ku dem fexe ba jot ca alal joojee dañuy seet ba xam nam ci jote bu fekkee ne joxewu ca dara dañoo seet rek dara jaam tax ñu jox ko alal joojee mbaa boog joxe na ca dara waaye da koy joxe coobare waaye bu ci joxewutoon dara it jot ca kon bu indi alal jooje dañ ko wax ne ko jox ko borom rek noonu te borom moom du la ci joxaat dara bu fexe woon nag ba jot ca alal jàmbur jooje delloo si ko waaye daa am lu mu ci joxe loo xam ne mënu ko woon a ñàkk a joxe bu ko joxewutoon du ca jot te it bëggoon rek borom jot ci akuk laabiir moo taxan mu nangu caa joxe alalam joojee kon bu dikkee bala ko borom mu jël dana ko delloo loolee mu ca ñàkkoon de bu fekkoon ne sax moom day joxe na ci alal doo caa jot te it bu ci joxewutoon loolee mu ci joxe du ci jot waaye nag moom bëgg lu baax taxutoon mu def ci alalam daa bëggoon jot ca ba noppi nag téye ko moom ko ba mu dikkee nag ñu xam ko ne ko kii mooy borom. faaw nga delloo ko ko mu door ko koo delloo kooku moom lam ci ñàkkoon da koy ñàkk rek waaye kenn du ko ko delloowaat ndax moom bëgg lu baax taxutoon mu def ci joxe alal ba jot ca loolu nag ci la ñu dugal lu mel ne àtteb foroot foroot bu fekkee ne nguur ga tey nguurug lislaam di wéyal la nga xam ne moom la yàlla santaane moom lu mu xas aay ne bu kenn dugal kenn du ko sañ a dugal waaye nag bu dul loolu nga fexe ba wuti loo xam ne ayut yomb na ko bëgg a jënd mën caa am te doo sonn ba mu ko indee ñu ne ko foroot la daal di koy nangoo ci moom di ko jaayaat loola ndegam ka ko indi woon di ko jaay ab jullit la nangoo ko ci moom rek noonu bokkum jullitam mu ko jëndaat ngir bëgg a jariñoo bu ko mën a jëndaate lu yomb nag ngir delloo ko kañ ko nangoo ci woon ne woon forot la loolu baax na waaye dañ ko xalaat jënd ci autorité yi nga xam ne ñoo nangu forot ba ngir rek am lu yomb ba tey it bu fekkoon ne la muy jël ñu ko tuddee forot lu baax la islaam nangu na ko ne alal ju baax la ju am njariñ la waaye nag bu ko jëndee forat noonu di ko duwal day andi lor ci jullit ñi kon moom ba tey du ko sañ li ñu wax kay mooy la ñu tuddee forot lu baax la loolu islaam baaxal la bu ko dugalee itam jullit ñi dañ cee jariñu rek waaye du am lor loolu nag bu fekkee ne dañ ko ci jàppee da ciy jëlee lor ju diis a diis mbaa faaw mu dem ci kilifa yi di leen ci sonal kon say boo rek lépp luñ aaye ne faroot la mu moytu ko ndax bañ a sonn bañ a sonal keneen fas lu ab dog la filaar yi yëti ci agle wal wadihati ak ndénkaan wal umanaay ak ñañu wóolu al umana jam amin la ku ñu doyloo wóolu ko gannaaw ba nag am lu ca feeñ mel nañ ko caa war a topp luy àtte ba looy la bëgg a boole ci bunt bi li muy njëkk a tudd muy able cosaanam ak sopp lay doon ci sa mbokkum julit am lu may àbb loo xam ne mën na caa jariñu nga abal ko bu jariñ ca delloo la loola njëkk la lu bari tuyaaba la waaye nag mën naa dama dem ba able ga nekk lu war sañus ko bañ mën naa dem ba araam mën naa dem ba ñu sib ko fa able gay nekk lu war a war doo ko sañ a bañ mooy bu fekkoon ne yow faj nga sa lor ba noppi te sa mbokkum jullit mais boo ko abalul mu faj loram rek bakkanam mën na caa des mel ne bu sedd sedd bu méttee métti boo xam ne yow am nga loo sol fegoo ko sedd bi am nag durus bu daan dawee boo xam ne moom amut lu mën a faje sedd bi te boo ko abalut mu faj ci sedd bi rek bakkanam mën na caa des abal ga lu war lay doon wala bu amee ab gàtt bu bëgg a dee nga xam ne war nañoo gaaw rendi ko te yow yaa amee paaka boo ko mën a abal mu rendi ko loolu nga abal ko paaka bu mu rendi ko lu war lay doon doo ko sañ a bañ fa muy araami nag mooy nga di ko abal loo xam ne da cay def lu yàlla araamal mel ne nga di ko abal ngànnaay te xam nga ne moom da cay lor rek jullit ñi ak nangu seeni alal ak xeeti caay-caay yooyu képp koo xamee lu mel noonu rek dana araam nga abal ko ngànnaay mbaa lenn lu ko yombalal loolee muy def fa ñuy sibee nag nga ablee sa alal mooy nga di ko abal loo xam ne nii lam cay def agul ci araam waaye lislaam da koo sib lépp loo xam ne lislaam da koo sib bëgguñu nga di ko abal loo xam ne da ko koy defee wama loo xam ne ustoxira abdef na ko raddu foo delloom nga mustaw jëbam luñu yeyal la wama damaanul mustaxiri déet war lépp aji abdu ja yajibu muy war maanaam muy sax illa bi qaabilil maghribi dara ci aji nangu ja ak njublam al maghrib mooy firi fàddu waaye rek mooy njublam lam yaqum ngoog taxawut bayinatu seere xale yi ci moom ne ànd hoo naka moom xodima ñàkkeef na ko awma wala loo xam ne al muhaaru lañ able xaddu te xuqiqa wóor loof na fii ci moom taaddin ak jàggati aw furrita wala sàgganeef fii ci moom mutlaqan ak lu man di doon mu tàmbalee wax nag lu aju ci mbirum àbb ak able lu mu njëkk a wax mooy boo àbbee bañ abal la war na nga delloo loolee ñu la abaloon war laa nekk ba boroom di ko jël si delloo ko yow la war te it delloo ko bu laajee luñ cee fay itam loola yaa ko war a fay ba delloo ko boroom ki lay abal nag moom dañuy jàpp ne dalaa wóolu ba abal la yëfam kon loolee nga àbbu moo xam luñ mën a njublan la moo xam du luñ mënta njublan su fekkee ne dafa sànku ba am lu ca yàqu waaye ay seere seere na ne yow kat du ci sag càggante du ci sag jalgati mooy defoo ca loo ci wata def sagganoo ca lii daal seere yi seere na ne lu ci yàlla dogal la rek kon loolee nga àbboon dara du la ca war moo xam nag loola luñ mën a njublan la moo xam luñ mënta njublan la maanaam luñ mën a denc di lay ak lu neexut a denc di lay loolu njublu ci lu su fekkee ne dafa sànku ba am lu ca yàqu waaye ay seere seere na ne yow kat du ci sag càggante du ci sag jalgati mooy defoo ca loo ci wata def sagganoo ca lii daal seere yi seere na ne lu ci yàlla dogal la rek kon loolee nga àbboon dara du la ca war moo xam nag loola luñ mën a njublan la moo xam luñ mënta njublan la maanaam luñ mën a denc di lay ak lu neexut a denc di lay loola njublu ci lu nangu njublan ak lu ko nanguwut ba tey bu fekkoon ne loola luñ mën a jublan la ni ki denc ko rek di lay waaye itam ay seere seere na ne moom ci dëgg-dëgg moom jublanu ci dogal ba dikk rek loolu it ba tey ka àbboon du ca fay dara waaye nag bu yaari yëpp dàqoo nga xam ne loola mënees na caa jublan denc ko di lay te it ay seere seerewul ne du ci moom dogal bu yàlla su boobaa moom faw ka ko abaloon sañ na koo fayloo ne ko danga may fay ni ki ko abaloon takkaay loo xam da koy waaj rek ak lépp loo xam ne rek lu neex a denc di lay la mu dëkk lay ko ne ko dañ koo sàcc mbaa nangam te amul yenn seere yu mën a seere ni wax na dëgg dañ koo sàcc kon ka able woon sañ naa fayu ne faaw dañ may fay su wóoree itam ne moom kat li mu àbboon moo ca def lu mu sot def lu caaduwut mbaa moo ca sàggan bala ca xew xew ca faw mu war a fay moo xam loolee day luñ mën a jublan mooy denc koy lay moo xam di luñ mën a jublan wal xawlu wax ja xawlu musta'irin waxi aji àbb la xalafa jotuwaat na fi raddima ci delloo la nga xam ne istaxaara àbboon na ko ay suxtalafa foofi xam ne woote nañ ñoom ñaar maalam yëkkun li fekk nekkut fiima ci loo xam ne ni yuraabu def na mën a fàddu xale yi ci moom aadatan ci aada aw uxisa wala jàppee foon ko bi shahaadati ci seere bal xawlu kon wax ja lil muiri ñeel na aji ab lay ja fiima ci la nga xam ne bayyanahoo leeral na ko fiima bayyanahoo mooy la woote rek ne